tey nak ñu ñëw fi ànd seeg euh, suñu suñuy xarit suñu ñi nga xam ay sportif lañ ñi nga xam ay ay ay supporters lañ ñu pare pour wax ci match Sénégal bi passé euh, Sénégal euh, versus Tanzanie ci victoire bi nga xam am nañ ko muy 2-0 tey damay jox sama sama sama mbokk yi xam ñoo tok fi ci représenter émission bi ñi jox la ñi présenter wu ñu daal seen def seen présentation. salaamaaleykum wa Sénégal ma ngi leen di nuyu ku ci nekk turak ak santam. di amaat mbégte ak kontaan ñëwaat ci seen émission jotaayu kaan bi waaw tey nag ñu fas yéene def benn ay briefing ci match bi passé ak projet taw tamit tuuti ci match bi di ñëw. waaw kooku mooy mooy su mooy mooy Sidi Mbaye mooy sunu mooy sunu sportif dañuy jox keneen mu présenté muy kii toog sama wet ñu daal koy jox mu daal di présenté wu. waaw asalaamaaleykum mbokk jullit yi ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur sa sant du nuyu sama naataangooy toog fii. Wai maa ngi pausman Pa Ousmane tey nag ma ñu ngi fas yéene waxtaan nak ci kan bi quoi way di ci amna contentement bu rëy rëy rëy ci ni ma tok ni tay ci plateau bi fas yéene daral gay yi wa waaw kooku lañu kooku ñu gis nooy moy mom mom moy Pa Ousmane xanaa ñu joxat sama mbokk bi togat fi sama wet mu daal présenté wu. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñep ku si nekk ak sa tour ak sant di am mbégte ak pour ñew fi si jotay kan bi. man maa ngi tudd Papy waaw di nuyu ñëpp pour préparer pour waxtaan si kan bi daal voilà. waaw kooku ñuy am noonu moom mooy moom mooy Papy moom tam mu pare pour partager li nga xam ne xam na ko ci match bi passé ñu jox keneen tam mu daal di présenté wu. salaamaaleykum mbokk internet yi maa ngi tudd Mama Mamita tey daal xam naa ni fii incha allah rabi du yomb bu leen ko tàddee. waaw jërëjëf jërëjëf kooku naan kooku la ñuy wax Mamita ñu joxaat keneen ñi nga xam ne mooy suñu dernière euh, ñi nga xam ne moom mooy suñu dernière euh, invité bi mu daal di présenté wu. salaamaaleykum maa ngi nuyu kulli supporter kulli joueur kulli internaute ak ñu nekk fii yëpp si palateau bi. fi narul yomb tey dafa war a tàng jël ba quatre-vingt-dix degré. waaw comme neen ko gisee ñu noonu présenté nañu ba pare suñu invité ñi nga xam ne ñoo fi toog te ñu ngi leen fàttali tam ñu ngi seen ñu ngi seen chaîne euh, Thioker TV ñu ànd seeg seen émission jotaayu kan bi euh, xanaa li may li may may li may première question mooy posé euh, boo xoolee suñu match bi passé dimanche bi passé ñu Sénégal ak Tanzanie ñu am ci benn victoire victoire bu rafet di daal bi nga xam ne 2-0 la léegi nag victoire bi nga xam ne bon waru arrêté waaw suñu premier match la victoire bi ñu ci am nice na trop di ñaan yàlla ñu am yeneen victoire ba ni ñuy demee final final bi tam ñu daal jël sama première question bi may posé muy ah, damaa koy laaj suñu ki nga xam ne mooy suñu suñu xarit muy Sidi Mbaye maa ngi koy laaj mu laaj ko Sidi Mbaye nan nga gisee ah, victoire bi passé ah, Sénégal Sénégal nan nga nan nga dundee victoire waaw merci beaucoup victoire bi man je dirais que dans l' ensemble c' est parce que keroog bu ñu minimum moy gis nañ benn jeu bo xamni dafa posé moy li nga xamni sénégalais dañ ko doon réclamer souvent moy Sénégal duñ jouer jeu bu posé moy manam jël bal bi doxal ko passe gauche droite génne génne ay profondeur te amuñu ko won di ko gis ci équipe bi kérok gis nañ ko waaw indi nañ benn jeu bo xamni dafa posé équipe bi ñu ngi doon jouer ñu ngi tek bal bi ci tanki yi waré transversal transversal du ñu doon jouer ay une 2 té lool dafa am solo parce que compétition bo ci dugg tamit. ak ak maanaam expérience bi nga xam ne jot nañ ko am normal nag keroog lu ñu joué ñu joué ko certes nag am na yenn yoo xam ni c'est à c'est à c'est maanaam war nañ war nañ ci yokk mais lépp mi ngi des ci ci màggaayu équipe bi rek maanaam dañuy joué match par match léegi match bu ñu joué dafa am lu ñuy jàngal si la ñuy si la ñuy tiré ay conclusions pour mën ñoo permettre ñu projeté wu ci match bii di ñëw. kooku di si si muy naan mooy Sidi li mu wax am na solo trop ci li nga xam ne développé na gis na ko ci match bi mu daal di koy wax xanaa ma jox ki nga xam ne moom mooy Pa Ousmane lan doll ci li nga xam ne moom la Sidi ci suñu première victoire bi nga xam ne am nañ ko dimanche bi passé waaw asalaamaaleykum waaw comme ni Sidi Mbaye wax rek maanaam équipe boo ko mënee da nga koy dóor da koy wan ni man maa la mën da nga koy dóor parce que tey ji tey ay Tanzanie lañ am suñu premier match ku ne xam na Tanzanie ni dañoo waroon exploiter sunu jeu ci biir terrain bi bu ko defee ñu am bi yu bari bu ko defee kenn mën na jël responsabilité bi dugal ay bi yu bari bu ko defee pour mën a bokk ci course bi meilleur buteur bi mais defuñu ko ci Tanzanie di foog moom dem ak moom ay 2 yooyu doxul quoi mooy kenn ma la wax rek nee naa la boo ko mënee da nga koy wan ni man maa la mën dama lay dóor score bu ko defee keneen képp kuy war a ñëw si ñu war a daje li nga xam ne kat kii kat waaw am na lu mu mëne moo tax quoi mais ñun dañu am équipe war ko dóor nekk fii di raay moom di dem moom raay moom match bi jeex waaw baax na victoire kër kër dugg na fi génn bien vrai que gagné nañ mais dafa des ay conditions des na des na lu bëree bëri bëri parce que tey bu amee équipe boo xamante ne tey la moom non dina difficile trop dina difficile quoi pour ñu encaisser quoi waaw dina difficile pour ñu kii daal waaw ci li nga xam ne mooy Pa li ma wax léegi dama ci rebondir tuuti boo xoolee suñu match bi passé boo xoolee euh, jour jour jour jour xam ne euh, au niveau international bari fa ñi xam ne ñu ngi football ci niveau international euh, ñoom ta ñoom ñoom Sadio footballul mais quand international la que mel ni Pape Mbaye Niang Mbaye Niang dama international la boo xoolee suñu équipe Sénégal bi boo xoolee ñoom ñoo gën a nekk ñoo war a gën a nekk si match parce que ñoom ñëpp ay compétiteurs comme li kii moom li comme li Pa Ousmane wax kon boog ñoom war nañoo gën a dominer match bi euh, Papy nan nga gisee match bi passé boo xoolee Sénégal ñi fi nekk joueur international bari nañ ñi nga xam ngi ci ay club di football normalement di bari nañ fa mais lan mooy problème ba tax euh, Tanzanie mi nga xam ne équipe bu ndaw la ñu mën ko ñu koy doo 2-0 wala lan mooy sa ci loolu loo gisee noonu. waaw man pour man loolu du yoon quoi yaa may dégg parce que

Ah, damay ñëwaat ci Mamita Mamita yow noo gisee yow en tant que supporter en tant que supporter noo gisee match bi match bi nga xam ne deux heures lañ dóor ah, kenn ku nekk xam nañ supporter moom du bëgg du bëgg du bëgg équipe am dóor dóolu ndaw da bëgg dóor score yow en tant que supporter noo gisee match bi ci deux heures yi nga xam ne dóor nañ ko mais gars yi xeeb nañ ko man li ma gisee mooy xeeb naa deux heures yi nga xam ne dóor nañ ko yow noo ko gisee yow. merci beaucoup man daal lu ma ko gisee daal kontaan kontaan naa trop. mais nag c'est que Séné Sénégalais début lañ am amuñu fin début bi dañuy jékki-jékki nga ñu kontaan loolu la waaye suñ demee ba ci biir dañuy tas sa yaakaar te es bi moom wax dëgg yàlla surtout man moom ku ci gën a ñaaw man kooku lu muy football amul waaye bi passé dama koo xaw a mere. daa rate lu mu rate moo bari day jàkkaarloo kaa di rate sama xol bi jeex xam nga man supporter la te damaa bëgg di gagner rek victoire moom dama koo bëgg mais defet moom day jeexal sama xol. waaw li mamita wax léegi am na am na solo moo mi ngi wax naan ku ñaaw kooku li nga xam moo a moom moo nekk ci kii bi toog kooku moom moo dugal deuxième bii bi kooku moo dugal deuxième bii bi Maroon la Chiner Maroon noo gisee match bi paase man Sénégal dañoo waxoon dama waxoon ne dootuñu dootuñu yàqati sama keroog dama jëloon décision ne du ma añ quoi seeraan gars yi mais gëm naa ne Sénégal dootuñu yàqati sama lekk dootuñu yàqati sama naan parce que man je suis totalement contre ci liñ joué yow Tanzanie Namibie Tanzania Tanzanie c'est est la deuxième fois muy ñëw Coupe d' première fois bi 2017 xaw ma 2015 dafa ñëwoon ne day jàng football ñëwul pour jël coupe xam nga kooku mën nañ ko pardonner quoi mais Sénégal 18 la waroon dóor ay kii nii nu mu tuddati U20 bi am na benn match xaw ma match kii bi xaw ma match grande grande Bretagne la xaw ma lan match boobu 11 0 la nit boo ko mënee da nga koy yar lu bari te man critique yi ma am at bi si dañ doon football calcio comme keroog comme championnat Italie ñuy bojji suñu joueurs yi at wi du tiré carton jaune waru woon génn carton vert moo waroon génn parce que gars dañ leen waroon sanctionner totalement est-ce que yaa ngi comprendre hein? Mbaye Niang defu fi dara Aliou Cissé sa rasa yi dañ koy war dañ kaa war a dagg yow pour nga ñëw nga nga cotiser normal lu waral sénégalais ay gagné quoi man bëggatuma ay 1-0 2-0 Sénégal presque 10 ans yi nii buy football meilleur scoream bi 3 la yem wala 2 musul passé. man nag man moo la je suis indépendant quoi je autoritaire lu ma neex laay wax parce que lu ma gis loolu laa wax bu fekkente ni gis loo gis loo wax dañ lay tëj man ne si kaso bi laay dee quoi mais Sénégal kontaanu ma si. Algérie xaw ma naari naari naar yi duñ bàyyi de bee boobu li ñu fubal bii passé nañ ko gën a pour bëggee am dara yokk dool doole ñeex. waaw damay ñëw damay ñëw ci ci sama sportif muy Sini Mbaye Sini Mbaye euh, match bi passé lan moo war a tax Sénégal dóorul bii dugul bii yu bari parce que boo xoolee euh, Tanzanie. Euh, ñun ñoo ko mën expériment football fekkee ñoo ñoo leen daa ko boo xoolee ñoom niveau bu ñu doon footballee boo xoolee niveau xale la dañ daan ga dañ doon gaañi rek mais la moo la moo nekkoon problème ba tax Sénégal mënu dugguñu bii yu bëri la mooy tamit dafa am lu ma bëgg sama bàyyi sama gars yi bàyyi ci xel ñëw ko lu bëri parce que football dafa am nu demee Tanzanie bu na ni équipe bu lay fekk taxaw ci taxaw ci ay camp boo leen seetloo presque match bi yëpp ñoom lañ doon jouer léegi de ce ñun mais nag am na booy jege yéen équipe yu ndaw yi doo am yenn risques yoo xam ne doo ko jël du da ngay ñëw rek caxat caxatee ko non non première minute mosoo leen daje di nga xam di nga am quelque aperçu moom ni muy joué mais tamit da ñëw xaw a def tuuti tuuti maanaam di nga dem mais doo dem à fond parce que mën nga dem mu am benn contre bu mu la def rek dugal la après ñëw taxaw ci ay kawam yàq match bi boo xoolee 2012 dar nañu contre Zambie Zambie année boobu certes moo jël coupe bi mais année boobu ñun bi ñuy daje ak moom ñoo ko mën mais dafa am ñaari biom rek def ko ci. ñu daw marché bi yépp après benn lañ mujjee am donc noonu la boo ñëwee da ngay xam da ngay di nga dem mais da ngay xawa taxaw tuuti da ngay am tuuti réserve non da ngay am tuuti réserve da ngay am tuuti réserve waxuma la da ngay réserve totalement ya ko mën mais da ngay am tuuti réserve manam da ngay xawa sam sa ginaaw tuuti légui dem ci kaw ak doole lool mo lay mëna permettre euh manam nga gagné nga gagné match légui li wax li tax dugaluñ nak efficacité mo ñu manqué je pense que ñu bari ñi ngi kaas naan Mbaye Niang Mbaye Niang mais buñ fàtte dara Mbaye Niang moy meilleur buteur Sénégal ci éliminatoire avec 3 buts boo seetloo mbay ñaa ñun presque li tax ñëpp bëgg ko sénégalais bañ départ loo moo gën a efficace ci mu am di koy dugal keroog nag ñi ngi doon wax blessure genre affaire yooyu noonu mais début compétition la léegi lii dina ko permettre lii day permettre coach bi maanaam mu defaat ay jàngat wala defaat ay jàngat ci ay jouram mais man daal li ma gis ensemble li ñu war a yokk mooy efficacité bi am na tamit quelques au niveau du milieu terrain ñu bëri ñu ngi naan milieu terrain xam ne war nañ gën a mën a réserver waaw parce que football dafa doy waar parce que Tanzanie du du foot de guerre du équipe boo ni day day day ñafe par rapport boo comme boo amee à naari ak yenn équipe yu mag yi dans ce cas comme ay Algérie nii day ñëw day day posé bal comme yow day football maanaam du la ragal même bu dee xam na ni sax maanaam euh, individuellement yaa ko mais du la ragal day dal sa kaw parce que naari ñoom noonu la ñuy footballee léegi nag il va falloir ñu defaat quelque quelque quelque jàngat ci ci ci match bii di ñëw. waaw Pa Ousmane. lan ngay lan ngay lan ngay doon ci seen mbay lim wax boo xoolee eh, bis bobu man mën na wax ne ba may seetaan match bi mën na wax ne mbay ñaar dañ ko waroon teel a ndax bo xolé défaut yu mu doon def ak rata yu bari yu mu doon def yow nan nga gisee nan nga gisee lo ci mbay ñaar façon de football mu doon football kéro waye comme li ma la doon wax rek eh, plateau bé passe bañ togué néna ñun dañoo complexe ci yenn méthode yu bari dañoo complexe comment ça se fait tay tay nga ni ki équipe bu ndaw la mëno mëno ko dóor score léegi nga bëgg am équipe bu mag nga ni tay tay no dina ko 4 wala 2 wala 3 wala 1 non c' impossible mënul nekk ci ndaw mënoo cee génn non mënoo génn ci lu mag impossible mënul nekk parce que ñu ay mbéñaa mbéñaa mbéñaa nee bien vrai que moo tax ñu qualifié xaw ma je ne wax ni quoi man mais man xam koo xamante boo ko dugalee ci biir bi non day gagné parce que tey jii doxul premier mi temps deuxième mi ko génnee jël keneen ko dox mais ay sama sama yaama neex la yaama neex parce que tey ji tey génn nañ fii tey deux mm-hmm. ah amaana beneen match bii ñëw contre kan Algérie xooma ah nañ leen nañ leen xool ba xam lu bët fu mu jëm ak wàn tam mais dina difficile dina pour ñu gérer ko parce que tey ji tey boo dajee tak euh, grand équipe yu mag yi nii quoi mm-hmm. de billahi wallahi wa taala da ngay am problème man li ma la wax rek nee naa la man balaa maa toogaat di seetaanaat euh, match Sénégal final rek moo tax ma toogaat ci télé bi naan maa ngi seetaan. lañ ko bëgg quoi mm-hmm. passion la yaa dégg muy neex nañ koy seetaan muy naqari dañ koy seetaan parce que football la ñuy seetaan. mais comme nu mu demee noonu keroog noonu la ma noonu rek la mënoon demee. mais boo xoolee action yi ak nu mu fa demee noonu xam nga da nga xam ni lii nii xoolal manque de volonté dëgg moo tax gars yi kii wuñu quoi parce que keroog waroon nañ dugal gaan bi lu bëri bëri waaw keroog Tanzanie war naa jël lu bëri mais bon mooy loolu quoi en tout cas daal joué nañ quoi joué nañ dans l' ensemble moom baax na quoi vraiment. mais football football football amul amul amul amul sens quoi parce que c'est que Macky Sall si boppam moom moo ñu tabaxal arène national ñëpp dañoo joueur bi war a dem bëri ji. est-ce que foofu la ñàkkee sens quoi man d'accord ma sànq si li nga wax est-ce que fii amul ay automatisme ak ay automatique amu fi. Sénégal gis nga nit boo ko mënee da nga koy jàpp dóor ko deux wala non kii a plus de deux loolu mooy équipe est-ce que ay Mbaye Diagne ñooñu. changement changement changement retard yi yooyu warul woon ay Moussa Konaté warul woon yéex a dugg ñooñu ay Moussa Konaté ñooñu ay ay ay ay kii lañ ñu mu ay jour lañ ay jour kaamil lañ. waaye c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal ko man d'accord ma ci loolu gars yi waroon nañ gën a mën a bërëng équipe ba tey maa la xam bi passé nee naa Sénégal fu mu waree jël coupe ya romb na góob ko xam naa ne su ma commencé julli moom faa ma commencé ñaan Sénégal toog quoi parce que ndax nit ñi pression bi gën a gën a gën a war a mën a mën a wàcc quoi parce que da ngay jël sa xel yëpp def ko si au finish yow tu te tu te sens honte quoi isa am yaa ngi comprendre noonu la demee quoi man je suis dé découragé. Euh, Pape Ousmane mu doon li mu wax nii léegi boo xoolee euh, ñu ne ren dañu dañoo jël benn slogan ñu ne euh, kat beeg mécanicien beeg menuisier bi ñëpp dañoo war a se porter ak Morone li mu wax ne nan nga gisee li mu wax daf mel moom moom na boppam ci Sénégal quoi découragé na déjà ci premier match bi nga xam ne am nañ ko ak victoire. waaye Morone li mu wax man man man man dama ci d'accord quoi dama ci d'accord li mu wax d'accord naa ci quoi parce que tamit mënoo jël sa temps tamit. ne man tey ji tey man damay supporter Sénégal bàyyi sa métier bàyyi sa lépp tey ji tey nga war a dem joobi am tey journée cinquante mille match bi jot nga noo na nga parax paraxee ko après nga toog nga ñëw nga am defet wala ñuy dóor deux après ñu naan non kii moo def li kii moo yàq li waruñu ñu jam la fii nga perte ma dem seeti kii parce que dafa waroon supporter non wala lan nga daw ci tali oto ne la téel doo gis jour am na xam te tamit comme li mu wax rek jaratu ko jaratu ko daal affaire dafa dafa daal Sénégal daal comme li wax rek fi mu waree jël coupe dafa dafa kii daal passé na daal waaye daf ko dépassé bu yàgg yàgg daf ko dépassé parce nga gis tey jaan topp la jaan romb la nga jël ci top ci watat bay dóor fekk c'est trop tard quoi c'est trop tard ok te tamit lenn mën nañu um quoi waykat yi nañu bàyyi di way gars yi quoi waykat yi yow période kan la ngay gis ñun Sénégal population mérité wul di dem kan gars yi di way ay ay Queen Biz ak ay yeneen gars yooyu période boobu rek la ñuy bàyyi pour ñëw promotion est-ce que yaa ngi comprendre mais ñun ñooy um suñu bopp balaa dara xew sénégalais ñun ñoo um suñu bopp loolu laa amoon ci lu may yokk quoi te tamit dañoo war a tëj studio yi studio yi la ñu war a tëj pour gars yi bañ a way ah way bi téye leen ko. mais mais mais dama ji ah waaw. dafa am yenn wax yoo xam ni man boo leen koy wax sax da ngeen may jaaxal yow mënoo jàpp premier match rek xam nga deux ñoo dóor après yow nga mën a taxaw fii naan non damaa découragé damaa lii non non du loolu mooy football. waaye defal nànk rek bu lii xeeñ na xeeñ weesuwul xeeñ weesuwul de 0 2-0 yow à part Mali amul beneen équipe boo xam ne moo ëpp lu mu ñu doon décalage de score Mali moo fi door 4-1. équivalent égal à à 3-0 ñun ñoo 2-2-0 ñun ñun ak ñun ay Algérie ak yooyu noonu donc kay ñun ñu ngi ci lancé bu baax li kay mooy ñu jàngat ci comme ñu jàngat ci match bii passé mais mënuñoo jouer match dañoo jàngata bay bëgg a dee dañoo jàng bay bëgg a dee chaque jour ak chaque match ñu ne noonu toog jàng jàng jàng mais jàng boo xam te ne kañ ngay tari kañ. waaw dafa nàkk mais mais équipe lu muy gën a dugg ci compétition bi di gën a màgg. loolu la xam nga màgguñu kon ñun màgguñu màgguñu non màgg nañu xam nga xam nga maanaam expérience boo keroog boo boo xoolee Tanzanie yi ay costaud gars suñu kaw bu baax donc il fallait que ñu ñu teylu leen quoi maanaam tepp tepp moo moo gën yuréet yaa may dégg amul amul chance nga fii dóor gars ay 7 0 8 génn yaa ma gën a xam gars yi dóor la ni ñu wala par série comme ni bu yuréet bu yàggee day taa day taa dootoo demat fenn parce que dañu lay kale non nañ génne suñu fubal ko kenn dàqu ñu kenn dàqu ñu fubal kenn dàqu ñu bërëng bal waaw man laaj jam-jam ñu organisé waat débat bi ñu organisé waat mamita mu jox mamita dafa mel mu ngi woykat yi benn ins ñoom ñooy xumbal ñooy neexal Queen Queen Biz pourquoi pas du woy am na droit woy yow est-ce que yow umoo Sénégal sa sa maillon dañ maa fay dañ fay pour ma sol maillon bi de. dañ naa dañ maa fay pour ma sol maillon bi. Ah. ma sénégalais de. xam nga. man senegal ma sénégalais dañ maa fay pour ma sol maillon bi. ah doo sénégalais. Oh. kon tax nga sol li mu mës a yëpp ah du mooy day mooy sax fii la fa noonu dafa Karim Wade Karim Wade faale ko léegi mu ñëw bëgg ñëw sonal quoi. ma ci débat l'essentiel xale bi dafa pare démb tey door a ñëw déggoo li muy woy yëpp a tegu ci temps bi yow moom yaa um Sénégal l'essentiel moom ay supporter lañ Queen Biz wéyal ba mu neex dañ koy déglu yaa ngi gis dañuy support nag ñun dañuy gagné sax beneen match bi incha allah dañuy gagné te surtout ma sama ku ñaaw kooku xam naa ni dina dugalaat loolu moom lu ma leen naañu la jaata eh. dugal rek lay def ay li muy rate moo ëpp lu muy dugal loolu ma métti <laughs> <laughs> waaw waaw kii damay ñëw damay ñëw ci Pape li ma doon wax li li ma doon wax li mu ne ah, artistes yi dañoo war a dañoo war a bàyyi waay te boo kese lañu gis ah yeneen pays yi woon def naa dañuy ñuy defaree ni ñuy ah, préparé kan soit ni ñuy ni bi boo xoole moo gën a doole que ni ñuy ni ñuy ni ñu koy defee mais xoolal tubaab bi xoolal tubaab bi ñoom bi ñu am seen match wala soit bi ñuy préparé fenn wala bi match loolu la def dañuy foo kafoore yàqaas bi fii waykat yi ñëpp way mais est-ce que du loolu noonu bokk di gën a motiver motiver motiver joueur fekk le fait di way est-ce que du gën a motiver joueur loolu moom question de motivation la rek. Mm. motivation la comme tey nii comme nga war a dem guerre buur ñu lay ñu lay ñaax xam nga. Mm. di la wayal say géwél say maam loolu la quoi mais du question ay dara non Maroon moom comme li ma li ma la wax dama dama koy comprendre parce que xamul football quoi <laughs> du xamul football moom lan la xam dugal bii xam nga xam naa xamul football quoi moo tax deux quatre mu tas la gëj a fubal nga xamul fubal mais ñun ñu xam fubal nii <laughs> dinañ xam ni carrément gars mooy loolu quoi avec le temps xëy na dina gën a développé wu mooy loolu uh-huh, uh-huh. yeah <laughs> Sidi Mbaye lan lan doole ci ci ci ci kii ci papi li mu wax ak gis-gisu Morone li mu waxee nii waaw non Morone moom moom moom waxu waxu comédien lay wax quoi parce que yow mënoo mënu ma concevoir man équipe boo xam ni uh-huh. dugg na ci compétition bi avec la meilleure des manières maanaam dóor ak score bu bari 2-0 voilà posé bal bi loo xam ne mosul am Sénégal man de laa ko gëj gis contre Danemark bi ñuy passante bi Henri Camara di récupéré ñuy passante Salif Diao di dugal laa gëj gis football bu mel ni Sénégal téye bal bi défense passé par milieu terrain yi def ay passe yoo xam ne day kase ligne bi direct i def ay inde keroog keroog laa ko mës a gis ci football Sénégal bu njëkk tëñëx tëñëx rek laa doon gis donc équipe bi mi ngi màgg da ngay sentir ni kat équipe bi vraiment instant nii gars yi ñi ngi wane ni am nañ niveau keroog boo xoolee Tanzanie amul chance parce que Tanzanie amul ay amul ay occasion sur goal est-ce que laal na bal Edouard Mendy laalul bal yu bëri yenn sorte yi mu jot a def presque day génn daw maanaam du nekk occasion bi boo xam ne dañ koy dóor mu def parade wala arrêt non non day daw génn jàpp bal bi waaw donc ngay sant ni équipe bi mi ngi defaru ñi ngi posé suñu ni ngi imposé te loolu moo am solo maanaam booy jeu équipe boo mën yow fexeel ba na nga imposé même boo dugalul même bu dee yaa ngi raté na nga imposé loolu moo am solo. dëgg la le Sénégal kérok ko fi 2002 2002 deug bi dafa sétone quoi Père lay moko que affaire tout allait bien ay Omar Pen, Ismaël Lo dañu ben que manam dañu bolé ci son que son son bobu da motiver quoi est-ce que comprendre 2002 ñi ñu sori mais gis nga suma ma ci waykat yi yi génération Sénégal mo bari sobé yi moo fi woyoon ne bu fi yemoon sax mu neex ten ten ten mu yam fa après maire bi ñëw ne kaaro yàlla nee leen kaaro non non finalo final lañ fi wax yooyu moom tey nag dinaa la contrer de sama xarit nga sama doom de mais am na yoo xamante ne nag moom ça ne se fait pas bu ko fi wax ah bu ko fi wax de man ñun bëgg gëmuñu yooyu laa la wax ok. seetkat yi su ma jugee si fii d'accord naa ci li nga wax seetkat yi bu njëkk seetkat amul woon am na benn ndaw suñu nekk si net bi xaw ma di wax ci làmb yi kooku ku mu sonn ndong ndong ndong la sant kooku dafa war a téye làmmiñam quoi secret yi nañ bàyyi pétaw yi moo tax man la gis nga ay ay Zambie Zambie jëloon na ko 2012 2012 ñi ko jëloon final yëpp seen dëkk amul pétaw mais Sénégal pétaw bee fi bari moo tax duñ jël dara dañ bàyyi pétaw yi tëj leen seen làmmiñ yi ah. yow moom li ma gën a métti yow hors sujet rek ngay génn yow lan moo tax yow mënoo ñoo cëppee seetkat su amul woon fu ñu jëm dama lay wax rek carrément yow est-ce que doo doo doo sa déglu ma déglul moo wax la da ngay ñëw fii ñu ne la tey ji tey non boo defee lii dugal bii di def ni kërëb kërëb kaay na nañ la rayal ay ndax nga taxaw dugal euh, footballoo defoo dara ba xam di nga dugal ay bii nañ bàyyi esprit boobu ñu jël def ko suñu bopp ay africain am na yoo te ne lekkat kasa naxul béyde ay nekk fii dugg na fii génn fii yooyu ay waxu kasaw kasaw dama leen di wax rek nañ bàyyi ay xarfa xuufa yeeg ñu jël def ko tardeel ay Sénégal bu rayee nag ak bu rayee gileem ak du dem non amul max la mooy la réussite est au bout de l'effort ñafe ci biir terrain bi ngir nga mën a éteindre base bi nga jëm ok nice gis nga man damay damay ñëw tuuti damay ñëw tuuti damay ñëw tuuti euh, ci euh, li ñu wax léegi ñu ne artistes yi ñoo tax euh, lions yi lions yi duñ sori man loolu gëwuma ko loolu gëwuma ko réellement parce que boo bu fekkee danga nga li nga war a entraîné am entraînement bu doy nga gëm sa bopp gëm sa équipe gëm ne yow sénégalais nga boo dugg ci terrain bi war a joxe ba mu jeex tubaab bi tubaab bi ñoom ñoom ñoom ñoom doo dégg ñu leen way te bu ñu duggee seen terrain bi dañuy toj ñoom Messi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii nu mu tëddee sax euh, ñoom ñoom Ronaldo ñoom loolu yëpp. Mohamed Mohamed tubaab dañ leen di way de. d' accord d' accord tubaab dañ leen mais bu ñu duggee ci biir terrain bi dañuy wane lépp. Mhm. mais bu ñu nee euh, artistes yi ni nga xam ne moo nekk Sénégal nii ñoom ñoom ñoom ñoo yàq ñoo yàq équipe pipi ah. Maroon moom dafa dafa sam xorom Pape bi lan ngay ci li ñu wax léegi. comme li mu la wax rek. tey jii nii comme li wax kii xamul dara lu mu siy wax <laughs> ay carreaux yàlla quart de finale kenn bu fi yamoon sax mu neex gis nga ñoom la ñuy wax ñoom démb la ñuy wax ay deux mi-temps quatre mi ñun fubal la ñuy wax ñii lu ñu fubal mënoo ko dindi la uh-huh. non eh, ils ont tout donné uh-huh. joxe nañ lépp mais uh-huh. tey jii ñoom lan lañ bëgg gars yi fubal nañ de fubal nañ def nañ lu ñu mën ah, lu ñu mën yee waay waaw non non non si si bu ñu la joxee les grandes équipes parce que tey jii tey contre Tanzanie mënoo dugal deux ah deux fois il pas eh, ah, dem trois quatre non si mais occasion de jël di raté di jël raté le kon de ah, non parce que les grands équipes barki alxuraan dañuy toga non non, dañuy mag nañ patati patata am xam dañ ko oui Mohamed fofu mom je pense que kérok moy moy moy partie bi nga épisode suis pas d'accord du tout parce que ne mënu pas concevoir nga jël papa Abdoulaye Cissé nga en tant que défenseur nga am blessé défenseur nga am défenseur de métier nga génn nga nga génn ko dugal koo xam ni milieu terrain lay joué club muy Cheikhou Kouyaté certes parfois day joueurs qui mais da ngay c'est-à-dire lu compétition la maanaam nekkul ay match amical dañu nekk ci dañu toll ci période boo xam ni phase dañoo sérieux instant bii nii lii compétition la surtout premier match moment boobu i sax dugal nañ bi nga nga génne ko di indi koo xam ni milieu milieu milieu terrain la Cheikh xool xam ni instant ni Pape Abdoulaye Cissé moo nekk ci ci forme côté parce que Pape Abdoulaye Cissé li mu da doon compétir équipe dafa joué match yëpp joué ay compétition européenne ah mën loolu comme kay bu dee bu dee loolu bu dee loolu la da koy ko teg ci orko lolou loolu métier la donc nako baye quoi nako mieux vaut mo bañoon ko convoqué indi indi ko at je pense que foofu mom je suis pas d'accord benen côté bi moy côté Cheikhou Kouyaté Cheikhou ki num mu Moussa Konaté côté boobu je suis pas d'accord Moussa Konaté waru won sax ñew je pense man selon moi waru woon ñëw coupe coupe d' bi ni parce que wa parce boy bi nek merci Ibrahima Diallo Diallo mom mo ko gën moo gën li 7 bi la fa am kii mi ngi am 27 bi bii seet ñu fu nek ki kii ki kii Dominos mais mais mo ko gën nek ci nouveau Moussa Konaté je pense que mën nañu indil may Diagne quoi comme Sénégal sénégalais ñu ngi koy laaj ñu ngi ko doon laajee ci Krépin mu indi ñu ko nañu defal loolu. waaw Maroon yow booy li nekk expert yëpp sa expert bi dafa bënn ko am na fu mu la rëcc Cheikh Kouyaté nga xamante ne ñaari jabar la yor mais dëkk bi borom ñaari jabar yi ñoo ko mën a yor booy dëkk bi borom barke yëpp borom barke yëpp yow Cheikh Kouyaté man je suis parfaitement d'accord ci changement bi ñu ko def fii koo fi gis koo fi gis mu am chance boobu noonu ñaari jabar la wala mu nekk doomu borom barke te ñaari yooyu mooy dox si diggan si dëkk bi. Moussa Konaté moom je suis d' accord mais Cheikh Kouyaté bi loolu amul fi wax ma rek yow kan nga fi gis mu am ñaari jabar te amul avancement est ce que yaa ngi comprendre ñaari poñ kii kii war dugg si bi caméra bi ñëw wax ak kii borom ñaari jabar yi ñooy doxal nga ne yow yow borom ñaari jabar yow yow ñooy doxal réew mi yow en tant que sportif en tant que sportif ne professionnel la nga dugg yor ñaari jabar dugg ci biir terrain bi nga ne da ngay def match c' est impossible mënul nekk bañ nañ ko ba déglu ma mënul nek la ay yow yaa yor ñaari jabar war a wara fi war a war eh ci bi terrain bi ay déglu c'est impossible ay conseil mais man man sama dëkk la wax waxuma waxuma ay waxu merci ay kiris man ñun la wax sénégalais la wax yow nga yor ñaari jabar yow bañ ko yow boy soko sa début sa carrière dañ nan ko jigen bu ko faale bu ko def ni parce que da lay tarer sa la nga bëgg am ñaari jabar bëgg a conseil fii bëgg a conseil ba bëgg a conseil ci bi terrain c'est impossible xel mënul nangu lool la wax xel mënul nangu lool alma boy boy buñu ñu sonal quoi ay jabar yoy ci kër ga ci kër ga lay Chris amul ñaari jabar Messi amul ñaari jabar Maradona amul woon ñaari jabar ñi am ñaari jabar dañoo dama dama xoolaat sa boobu de dafa mel ni sa Eusica dafa dafa naaw. lii ça se voit moom du suivre match nee Messi ak Chris am dafa am ñaari jabar loolu doy na waar yow mën yow sa say wax sax waruñu kaa waruñu kaa déglu. sa waay moom comme li ma lay rek ñàkk a xam football bi ñuy wax fekk du suivre football moom day gis gars yi sol maillot nii rek mooy loolu. loolu quoi mom mom moom du Sivurmans moom. léegi changement changement changement jaaw jaaw Baldé bi changement jaaw Baldé noo ko gisee Sidi. waaw changement bob je pense que baax changement bob baax parce que am na jaaw bo boo dafa xawa a wa changement bob man du du du ma du du ma ko ci critiquer lu li quoi mais en tout cas ce qui est sûr mooy changement wala ko xolal parce que changement moy gagner match yi bo xolé contre Cameroun changement yu baaxul la def mo taxoon ñu perdre ko léegi football dafa tollu fo xamni changement yi bo xolé Liverpool euh, contre Barça seen changement yi ñoo gagner sur match bi de. C'est un dum ñu dugal moo différence bi donc instant niveau professionnel la ñu dafa toll foo changement yi da nga koy xool ko neex les hommes qu'il faut à la place qu'il faut loolu mooy tax nga gagné yenn match yi surtout boo tasee équipe yu mag yi dañ seen changement dañ koy xool da ngay def ay changement yu baax da ngay xool fi nga xam nga parce que instant bi soxla nañ ay joueurs yoo xam ni parce que fii ak ci kanam tuuti compétition bi day gën a metti ma dem ay match yoo xam ni doo dugal donc da ngay koo xam ni Mbaye Diagne mi nga waaw Mbaye mi nga def lu baax këlam voilà da nga koy mu am mu dugg ci compétition bi ak lu baax boo defee prochain match waaw bo mais euh, ñun ñu ne ay lan ay professionnel lañ léegi comment ça se ñun ñu ne ay professionnel lañ te dañoo war a dem kan mais pourquoi ñun amuñu yenn préparateur ñii ay physique tactique lépp daal général sa yaram daal mais nga dugg ci biir terrain bi ah ñu ne non jour bi dafa diis dañ koy def changement a def nii ak nii kon léegi ñun ñun dem bi ñuy dem pour entraîner pour saytuwaat suñu yaram léegi lan lay jariñ léegi koo xamante ne moom yaram bi diisul mi ngi en pleine forme ñu jël ko teg ko ci baam koo xamante ne yaram bi dafa diis ñu jël ko di ko dugal loolu mooy première faute ci Aliou Cissé léegi nga bàyyi yow public bi na après naan la non da nga waroon def changement bi changement bi après mu demaat toog bàyyi ci xel li a joué moo tax a muus nee naa leen coach day gagné match avant jour jour bu doxul coach bi mo war né eh changement kat ni nañ def ni ak ni ak ni buñ démé à la mi-temps buñ démé mi-temps légui ñu né kat ay eh, jour bi li nga def doxul yooyu nga def doxul légui da ngeen di changer def nii ak nii mais ñu bàyyi ba duggaat ci biir terrain bi déglu wax public waxu askan bi naa après ñu né non buñ ñu génnaatee Aliou Cissé neen dafa def changement def def lolu coach du mel non way coach da nga wara a xarañ te par yëpp. waaw Maroc xam nga yow sànq yow dèjà yaa ngi fekk yaa ngi yaa ngi fekk yaa fekk si li ma doon wax wax naa Aliou Cissé dañoo war a dégraisser parce que coup du monde ba mo moo tax ñu tok parce que changement retard bobu noonu xam nga ñu ne moo ñu tolloo nest si match Colombie moo nekkoon suñu dernier match ci coupe bi am na boo amoon na bi suñu benn jour bu bu ñu génn mu war a dugal boobu noonu ci la Colombien yi jaar dem dugal bii bi li ma la waxoon bañ rek bañ bañ nangu la parce que Aliou Cissé a dagg rase yi course da ngay mat course bu dindi woon rase yi Sénégal day ameel wax ji rek yow xam naa ni moom moom lu mu ba ñu teg ko fa yow suñ suñ la fa tegoon leneen la ñuy wax ndax doo doo fa dem doo dem doo dem Sénégal moom mënoo fa buntu ba sa doo fa jege. <laughs> bon ñu cadre waa tuuti cadre waa tuuti débat bi euh, ba léegi ñu leen fàttali suñu mbokk téléspectateurs ñu ngi si yéen a ngi ci en direct si Thioker TV ak seen émission euh, sama dernière question bu may bu may ñëw mooy euh, suñu match bi nga xam moom la ñu war a jeudi moom la war a joué jeudi le 25 avec avec Algérie Papi nan nga gisee match match bii di ñëw match match pêche la quoi parce que équipe bu ñuy fubalal mënuñu ko à 100 pour cent mun naa ne sax ñoo tolloo surtout tous les plans nag xëy bi par benn benn ki kenn ki comme nga jël benn Sadio Mané wala benn Crépin wala benn Moussa xam nga fët fët dina dina am opportunité bu mu bu mu bu mu gérer équipe bi mais kantaañee naari ay saay-saay lañ ñuy fubalee xam nga mën nañ ballon pied mën nañ fubal xam nañ fi ñuy jaar kantaay li ngay am di ko ratee ñoom bu ñu ko amee nañ koy dugal mm-hmm. te mën nañ sàmm seen camp naar yi mën nañ la mën ne match bi commencé une minute ba quatre-vingt-dix doo égaliser mm-hmm. loolu moom mën nañ ko quoi mais mm-hmm. donc nañu gën ñun dèjà ñun nañ gën a sàmm suñu camp man moom góol bi wóolu naa ko Mendy xam nga c'est très bon gardien bon gis des yëpp ay détails la mais bon li si gën a am mooy ñun sàmm suñu camp dèjà parce que naar yi moom dama leen ragal la trop voilà Sidi lan ngay dolli ci ci ci Pape li mu wax ci suñu projet prochain match bi ñu am ñu nag waa waa Algérie. waaw Algérie mën naa ni euh, dañoo nekk ci ci ci ci reconstruction boo xoolee ay jeune lañ yor instant bi nii boo xoolee Mahrez Mahrez mooy moo fay capitaine Mahrez du mag noonu te ci ancien la bokk donc équipe équipe bu jeune la comme ñun waaye maanaam dañuy tolloo. mais nag ci li ma seetlu seetaan naa seen match ñoo leen xaw am ñoo leen xaw a gën a posé jeu tuuti mais li problème bi mooy naar yi ñoom match match dañ ko dañ ko respecté ñoom maanaam bu ñuy bu ñuy seeg yow boo leen mënee boobu lay gën a metti gis nga boo wala ngeen xaw a tolloo boobu lay gën a metti da ci jigoon Kenya sax mën nañ cee bañ a jëg parce que ñoom bu buñ ko amee dañ ko ciy def léegi nag ñun il va falloir ñu ñu gën a efficace Nous sommes efficaces parce que match marché nii mooy match qualificatif bi gagné match ñëw nga sa banc sax a parce que match da permettre qualifier directement manam yow do sonn yow da ngay gagné match qualifié nek ci lenen di préparer sa carré finale waaw bu ko défé sa sax dinañ a ci compétition bi say deuxième gardien troisième troisième gardien yeeg yoy non ñu nous ñëw nga xam compétition bi saf donc fofu la amé solo manam da ngay gagner match bi ni nopal sa équipe nga xamni contre Kenya da ngay ñew jouer match bi posément Algérie nari nak dama la ko wax Algérie du équipe bu ndaw du équipe bu ndaw comme ki ni comme sama niko papi waxee rek boo jëlee côté individualité soit dañ leen di xawa touti tuuti dañ leen di rawee touti mais bo jëlé collectivement ñun lañ am mom lañ am ay professionnel lañ am ay joueurs yo xamni ñi ci championnat yu mag ñom mom lañ am waaw donc match bo xamni maanaam da ngeen di da ngeen di jàkkaarloo face to face la léegi il va falloir nag ñu am caractère li manqué équipe li ñu manqué sax laay wax caractère li ñu manqué moom la ñu war a moom la ñu war am efficacité maanaam boo ko amee da ko ciy def ba pare sàmm sa camp bu baax milieu terrain bi ñu gën a posé teg bal bi faire jouer l'équipe faire jouer l'équipe téye bal bi tourné ko buñ gaaw a joxe bal bi loolu lañ soxla ci match bi di ñëw Ah, Sidi ah, Pa Ousmane ah, on dirait Pa Ousmane ci match bi passé on dirait que dañoo suspendre woon kii moo di moo di je pense que il est temps mu wane boppam parce que ñu ne waa Algérie xam naa ne du a yomb ak Sadio Mané mii ñu war ñu war ko match boobu lan mooy sa xalaat match bii ñëw. ah waaw li ma ci xalaat daal maanaam maanaam comme li gars wax rek bu fekkee bëgg nañoo gagné. bu fekkee bëgg nañoo gagné parce que gars yi nee nañ doole dañuy poser jeu dañuy def nii comme lu wax nee ñoom équipe bu mënee wala nga mën ko da ngay ñëw jaar ci kawam dem léegi man loolu laa bëgg ñun bu fekkee ñun ñoo ñun ñoo leen mën wala mënuñu ñu ñun loolu bu ñu ko def parce que loolu ay détail la ay kii moo mën wala mën ma nit nga dugg gars def dara di sóor ba yaboo nga dem toogee waaye dama bëgg comme maanaam gis nga Sadio Mané bu ñëwee nee

Algérie daal naa leen xamal leen gi nga mas boobu du yomb de mas boobu du yomb parce que Zidane n'est-ce pas Zidane moo yor Algérie Zidane algérien la woon moo yor Algérie Algérie warul warul warul Sénégal ah Zidane moo yor Algérie nag quoi parce que Zidane du algérien wala bokku ci manager yi algérien yi naar yi duñ bàyyi quoi ñoom soow la ñuy lekk zirik. mis wi te gars yi ma gis nii ceebu kecax bii nii gëm naa ni moo nekk seen yaram gëm naa duñ ko mën a gañ non daf ma parce que li may teg nii raay la man ñi may seetaan nii xam nañ li may wax nii dëgg la ceeb. xam nga la mooy sa problème. yow da nga xamul zóor yi déjà loolu mooy problème ginnaaw télé ngay seetaan. ñëw taxaw fi xam nga yow xa xamee woo fu commencé ak fu mu jeexee yow loolooy problème bi ma doon jaaxal na ma. waaw li mu wax erreur la ne Zidane <laughs> moom moo yor Algérie oh, <laughs> moom li seetaan match la euh, euh, ñu rey ak coow quoi. nan nga koy nan nga koy victoire nga koy préparé comme que victoire rek ngay gis gisoo défaite nan ngay préparé woo match boobu noonu. ni ma victoire rek lay te gëm naa ni gëm naa ni aussi kii jaata dina yëngal comme ni mu yëngalee woon xam naa ne moom mënoo ñaaw ba pare bu koo boole ba ñu yëngal defet la dina yëngal bu baax te ñaa moom lenn laa koy wax man defe naa ne xam naa ne suy dugg si tey day miir miir boobu mu nan